chers téléspectateurs de la 7TV nuyuwaat nañ leen amaat mbégte contenté janowaat ak yéen ci li nga xam ne mooy seen émission avocat nga xam ne toutes les semaines dañuy ñëw waxtaan ak yéen ci question questions juridiques mais aussi ci ay cas mais aussi l' actualité de manière générale te nag ñu bëgg ñëw ci benn pratique boo xam ne actuellement ñu ngi koy ñu ngi koy def lu bëri bëri bëri muy la collecte ak la manipulation des données personnel parce que nag contexte bi nga xam ne moom la ñu nekk dañoo nekk actuellement ci contexte parrainage donc collecteurs yu bëri di def li ni mel muy benn pratique boo xam ne pratique bu illégale la c'est une violation au droit de l'homme te war nañ ci vraiment taxaw def si taxaw seetlu donc conscientiser li nga xam ne mooy la population pour ñu xam exactement pratique boobu noonu nu mu mel ak nu mu nekkee vraiment une infraction en plus une violation au droit de l'homme tey ci dalal ki nga xam ne mooy Assane si nekk un cyberjuriste waaye itam xam-xam màcc bu baax a baax ci li nga xam mooy la protection des données personnelles monsieur si ñu ngi lay dalal di la nuyuwaat bu baax a baax. Euh, di la fay bu baax a baax Amadou Tall donc merci de nous avoir invités sur la 7 TV euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers la 7 TV di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi nga xam ne saxoon nañ seetaan émission bi Ah, bu ñu waxee kilifa diine nag ngeen may ñu ñu nuyu suñu kilifa suñu sëriñ Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko aar ko bu baax a baax merci yàlla sàmm ko aar ko bu baax a baax a ñu ngi lay remercier jaajëfal bu baax a baax Assane dégg li nga xam ne moom laa moom laa commencé ci li nga xam mooy thématique bi ñu bëgg waxtaane mooy la collecte illicite ak la manipulation illicite des données personnelles ci contexte bi nga xam ne moom la nekk actuellement contexte parrainage Assane si yow ngay ngay cyberjuriste xam bu a baax waaw comme ni ñu ko gisandoowee ah dañu nekk ci contexte bu nga xam ne bu bu jaxasoo la <clears throat> parce que actuellement ñu ngi xam ne ñu ngi ci ci cadre parrainage mooy contexte euh, préélectoral te bu ñu waxee préélectoral dafa am ay activités yoo xam ne moom la ñuy faral di def lu ci mel ni tey parrainage ñu gis nag dëkk bi yëpp daanaka foo tourné gis ay fiche gis ay numéro ku nekk gàddu sa feuille gàddu sa bic ñii di wër ñii di wuti ay nombre de parrain parce que gis nañ ne que ak code électoral bi dafa am benn nombre boo xam ne moom la ñu imposé képp koo xam ne da nga jóg ne dangay dem laaj askan wala da ngay laaj baatu askan bi pour jiite réewum Sénégal loolu la ñuy loolu la ñuy wax parrainage loolu nag boo koy def da ngay soxla ay information information yi noonu moom la ñuy woowee données à boo xoolee loi 2008 12 du 25 janvier 2008 ñu ngi ko définir comme bépp xibaar boo xam ne dafay mën a permettre ñu identifier la personne de façon directe ou indirecte bu ñu waxee identification directe mun na dellu ci turam santam numéro d' identification nationale am numéro électeur am wala leneen ak leneen bu ñu waxee identification indirecte nag dafay dem ci yeneen information yoo xam ne boo leen combiné dangay mën a xam exactement ak ak ban personne nga am ak nga am ak nga am affaire quoi. Mhm. moo tax ma ne la tey jii nii dina xaw a nekk lu lu doy waar parce que actuellement comme ni nga ko waxee données personnelles yooyu par exemple bu ñu jëlee ci benn cadre muy carte yi nga xam ne dafay am des données mais nit ñi dañ koy soxla ci li nga xam ne mooy wàllum parrainage mais actuellement boo gisee collecteurs yi ñi nga xam ne moom la ñuy collecté donc Assane si ñu ngi utiliser les données personnelles des des des des gens que ñoom sax ñu rendre su compte absolument parce que boo xoolee euh, daanaka li nga ni nga ko waxee looloo ci nekk euh, données personnelles yooyu noonu moom la ñuy remplir ci fiche de parrainage yi de parrainage boo xoolee dafa am ay grilles grilles li ci njëkk mooy nom prénom numéro d'identification nationale numéro électeur ak date d'expiration bi nga xam ne moom mooy numéro carte bi moo nekk ci carte d'identité bi ak signature mais comme ni nga ko waxee am na si ñu bëri ñoo xam ne tey parrainé nañ leen ci ay fiches yoo xam ne ñoom yëguñu ko surtout suñu suñu yaay yi nga xam ne ñoo bokkoon ci ay mbootaay ñi bokkoon ci ay appel à projet parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ne on est dans un pays social ñu si bëri bu ñu déggee financement rek dañu daal di daw dem joxe seen photocopie carte d'identité bëri si ñoo xam ne nag photocopie carte d'identité yi noonu la jël reproduire ko ci ay fiches sans le consentement de la personne concernée mooy mu dellu ci li nga wax mooy collecte illicite déloyale des données à caractère personnel te loolu nekk infraction au regard de la loi pénale beneen bi ñu seetlu mooy euh, ci collecte illicite boobu ba tey du sax rek ci association yi wala mbootaay yi mais ba ci collectivité locale yi nga xam ne ñun fa la ñu bokk par exemple da gis ci yenn communes yi <coughs> wala yenn conseil départemental yi wala yenn doon faral di yóbbu ay demande d'aide soit ci eddu tabaski wala eddu korité copie carte d'identité des fois boo ko fa bàyyee yu mel ni bu jotee nit ñi mën nañ utiliser yooyu noonu à d'autres finalités ah, moom mooy jël ko utiliser ko ci cadre parrainage mooy waral sax des fois nga gis benn candidat ñëw taxaw ne la am naa 8 millions de parrains wala am naa 4 millions de parrains te en réalité fichier électoral bi ni mu fi mu toll actuellement bi ñu ko séddowee ci ci ci ci candidat yi néew na nga xam ne di nga gis mu romb 3 millions li nga wax dafa am solo c'est-à-dire boo demee ci collectivité locale yi boo demee ci mbootaay mais Assane yemul foofu parce que boo demee tamit ci l'administration da koy gis boo demee ci institution aussi privée yi aussi gis da mel mu mel ni affaire bi yemale wuñ ko fenn cest à foo laal actuellement ñu ngi def cette collecte ak li nga xam ne mooy manipulation des données personnelles. absolument parce que en fait données personnelles moo nekk loo xam ne elle est omniprésente. Mm-hmm. parce que bëri la identifier identification consommation dafay traiter massivement des données à caractère personnel entreprise yi dañuy traiter massivement des données à caractère personnel mais quitte de ces données lan lañ koy doyee parce que nit ki Euh, que ça soit l'administration que ça soit l'entreprise que ça soit une personne physique moom la ñuy woowee responsable de traitement dès l'instant que mi ngi jël ay xibaar ci nit ki yoo xam ne moom moo ko moomal boppam responsable de traitement boobu noonu dafa ay obligation yoo xam ne moom la warloo ak yoon ci naka lay sàmmee xibaar yooyu noonu waru ko utiliser ci beneen finalité boo xam ne prévoir ñu ko woon waru ko def naka sudul noonu war na veiller sax ba sa ko données yooyu noonu mu collecté mu nekk ci ku laxa wala ci béréb boo xam ne bu sûr lay doon bu beneen personne boo xam ne amu ci woon accès daal di ñëw dugg ci. daal di ñëw dugg ci comme ni nga ko waxee cest boo xoolee actuellement phénomène bi ne ngi ci benn niveau boo xam ne niveau bu ni nga ñuy génne li nga xam ne mooy collecte illicite boobu noonu yéen les droits de l'homme nga xam ne yéen ngi ci aspect bi mais aussi yéen les cyberjuristes ngeen xam ne xam ngeen pratique boobu noonu nuñ koy nuñ koy defee pourquoi pas dégguñu leen ngeen def alerte bi vraiment conscientiser waaw ah, Sénégal moo nekk réew boo xam ne booy wax liy jariñ ña lay déglu du bari <coughs> la preuve euh, ñu si bari xam nañ ne la ñuy def yoon daf koy aaye la ñu nekk di def yoon daf koy aaye mais booy wax pour alerter sax à la dañu naan kii dafa bari wax wala dafa soof te xamuñ ne donné personnel dafa nekk lu sensible luy dugg ci cadre vie privée la preuve tey ñun. on a fait le tour du Sénégal on a fait yoo xam ne ni dem nañ fa sensibiliser les gens sur l'importance des données à caractère personnel mais sensibilisation bi dafa des parce que ça doit être à grande échelle mais malheureusement moyens yi matewu ko ñun dañuy def lu ñu mën ñeneen def leneen ak leneen ak leneen pour mën a raatale wala matale euh, ci ci ci ci échelle bu gën a large li nga wax tamit droit de l'homme si ñu ngi alerte mais xam nga euh, quand on est en face euh, des ans yoo xam ne ils sont super pour nga mën leen contraindre à ce que ñu respecter la dafay jafe moo tax des fois nga gis yoo xam ne ay maatay la parce que bu ñu fàttali ko élection 2019 yi am na ci candidat yoo xam ne sommé nañ leen pour collecte illicite de données à caractère personnel mais soo xoolee même pratique yooyu noonu moom mooy continuer di amaat la preuve am na ñoo xam ne base de données yi ñu roon en 2019 moom la ñu conduire en pour dem préparation élection parce que ñu ci bëri seen centre de vote du changé ñu ci bëri seen numéro électeur du changé donc dañuy préférer garder la même base de données bu jotee rek ñu jël ko transposer ko ci seen ay fiches. te plus dafay nekk amuñu culture boobu noonu di protéger li xam ne mooy seen données personnelles parce que comme ni ñu koy waxee c'est-à-dire du administration kese mais ci réseaux sociaux seen données personnelles cest à suñu données personnelles. voilà li ko waral mooy dañu amul lu ñuy wax éducation au numérique. xam nga tey nga nekk ci réseau sociaux yi ñu wan la benn plateforme rek ne la plateforme bii kat boo ci duggee di nga mun a am wala di nga mun a gagné par exemple benn iPhone 12 wala je mun a am crédit wala di nga mun a am xaalis rek nga profité rek posté ci sa ay xibaar parce que en réalité dans la pratique cybercriminelle dafa am lu ñuy wax phishing. phishing pratique la bu nga xam ne dañ koy gis ci application bu ci mel ni WhatsApp wala Facebook wala sax ci suñu ay boîte mail nga jékki saa ñu envoyé la un mail envoyé la un message ne la kat soo ko partagé ak say amis tu auras tant de crédit wala tant de connexion wala tant de d'argent ci la plupart ci message bi soo xoolee ci suuf da gis un lien bleu boo xam ne ci lay figurer lien bleu boobu nag boo ci cliquer le concepteur du message daf lay laaj ay données à caractère personnel mais ñàkk culture numérique wala ñàkk éducation numérique mooy tax ñu ci bëri dañuy profité rek daal di koy dugal daal di fay dugal seen ay xibaar pire encore parti politique yi gis nañu ay parti yoo xam ne commencé nañ développer ay plateformes xam ne ñu am contact physique ak parrain bi te loolu dafa nekk ay yoo xam ne plateforme bi balaa nga koy mettre en place sax war nga ko déclarer donc suñu jógee tam suñu jógee si au delà des partis politiques puisque ci parrainage dañu nekk même dans les réseaux sociaux da ngay gis ñoo xam ne tey dañuy dugal seen numéro sur internet ku bëgg a parrainer diw woo ma ci numéro bi wala envoyé ma sa photocopie carte d'identité te xamoo ne photocopie carte bi nga koy envoyé nit ki nga koy envoyé mën na ko utiliser à d' autres finalités. mais Assane Assane rassuré ma ci benn affaire cest dire internet bi cest dire les réseaux sociaux par exemple et et cetera mais ci biir internet bi cest dire réseaux sociaux yi amul benn boo xam ne dafay laajte lool c'est-à-dire mënuñu jaar par exemple Facebook wala WhatsApp pour mën a retirer genre information yooyu. non non non loolu mënul nekk parce que en réalité au niveau des plateformes duñ fa duñ fa duñ la bon booy tëj am na vidéo yi ñuy gis ay nit naan non application bi dafay parrainer boobu boo ci duggee dangay gis benn icône bu ñuy def parrainage xamuñu ne parrainage boobu nekkul parrainage électoral parrainage boobu en fait l' application dafay soxla élargir ses ses ses ses cibles par exemple tey su ma koy utiliser mun naa la ko suggérer nga installé ko loolu parrainage la tudd ci application bi bokkul ak parrainage électoral gis naa benn homme politique bu siiw taxaw devant les écrans ne non application telle dañ koy utiliser te boo fa dugalee say données da ngay prene parti politique sangam loolu c'est c'est pas vrai parce qu'en réalité application bi ci boppam boo xoolee bëri na ci application ñuy utiliser dafa am mécanisme de parrainage maanaam suggérer l'application à une personne pour mu mën ko pour mu mën ko télécharger voilà mais réseaux sociaux yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser moom la fa mën a xew mooy ñu dugal fa numéro wala ñu dugal fa benn benn lien ne la kat poste bu fekkee da nga bëgg a parrainer candidat sangam wala candidat dugal fa sa photocopie carte d'identité su boobaa ñoom dañuy am photocopie bi te su boobaa mën nañ ko utiliser à d'autres finalités parce que rek bu bu parrainage bi jàllee dans les normes finalité bu parrainage bi jeex na mais pire encore da gis ñoo xam ne dañ koy jël di ko yóbbu ci yeneen affaires yoo xam ne infraction mën na ci am te su boobaa yow la personne concernée ci la war a saytu lu ni mel sànq yaa ngi koy wax entreprise yi am nañ benn obligation cest bu ñu leen joxee ay ay données personnelles ñu war ko mën a sàmm ba keneen du ci keneen du ci keneen du ci jot tey dañuy ñëwaat un ci CDP boobu nga xam ne moom moo war a liggéey liggéey boobu noonu est-ce que CDP boobu n'est pas dépassé par les événements actuellement vu l'ampleur du phénomène waaw bon di di sax di leen di leen di leen di leen di leen féliciter ils sont en train de faire un travail extraordinaire la CDP parce que yàggul dara génne nañ benn mini guide boo xam ne ci cadre parrainage la collecte de données à caractère personnel ñoom CDP parce que tey soo xoolee <coughs> fi ñu fi jamono toll numérique dafa lëmbe àdduna lëmbe Sénégal lëmbe secteur yépp te CDP ils ont des ils on des moyens très limités mais ñu ngi def un travail colossal on les remercie ou les félicite de passage soo xoolee <clears throat> comme ni nga ko waxee ci mini guide boobu par exemple tey da gis ne ci cadre parrainage bi euh, le parrain bien voilà avant avant sax ñu dem ci le responsable de traitement le parrain dafa am ay droit yoo xam ne moom la ko yoon may mu dollu ci carte li ñuy li ñuy njëkkee mooy droit à l'information préalable képp kuy ñëw di jël sa xibaar pour parrainage war na la wax moom mooy kan fan la jugee ay information exactam loolu la ñuy wax droit à l'information préalable bu fa jógee yow en tant que parrain am nga lu ñuy wax droit d'opposition mën nga opposé wu à ce que nga bañ a parrainer un candidat parce que say say données à caractère personnel mais léegi nag parrainage par force moom parce na ñoo xam ne parrainé nañ leen te fekk ñi ngi nelaw beneen bi ci topp mooy droit de rectification bu fekkee ne ci fiche de parrainage bi gis nga ni information yi ñu jël ci yow c'est pas c'est pas c'est pas exact nekkul yu baax am nga possibilité ñu ñu ñu rectifier ko pour pour pour pour des fins yoo xam ne nii yu yu baax la bi ñuy mujjee mooy droit de suppression parce que même le parrain na possibilité tey bu parrainage jeexee nga dem ci plateforme bi collecté woon sa ay données à caractère personnel nga ne ko kat supprimer samay données parce que finalité bi parrainage la woon. bu ñu jëlee ci le candidat en tant que tel dafa am ay obligations yoo xam ne loolu la war a mat la war a sàmmonteeg askan bi obligation yi si njëkk par exemple mooy obligation de de de de, sécurité. dafa war a mettre en place des mécanismes de sécurité yuy garantir données wu jàmbur yi ñuy collecté parce que munoo jël ay mille et quelques ay cent mille parrains. jël seen ay photocopie carte d'identité jël seen ay tur am na si ñoo xam ne dañuy extrapoler ba jël numéro de téléphone te loolu bokku ci wala ñu laaj sa turu papa wala sa turu yaay te loolu bokku ci mais boo xasee ba jël yooyu da nga ko war a sécuriser beneen bi mooy dafa war a am transparence ci naka nga koy yore beneen bi ci topp mooy obligation de finalité il faut toujours déterminer la finalité des données collectées maanaam yow candidat bi booy jël parrain da nga naan ko kat ci cadre parrainage bi laa koy jëmale bu jeexee dama koy broyer dama koy supprimer wala dama koy def leneen ak leneen boo xam ne je pense CDP moo ko moo ko génne mu am tey jii nii c'est-à-dire bu ma la laajee par rapport ak est-ce que CDP bi dépassé par rapport ak structure yi parce que structure yi bëri na actuellement fii ci fii ci Sénégal tey jii nii bu ñu jàppee par exemple ni structure bi mi ngi génnee de des données à caractère personnel est-ce que CDP am na des moyens vraiment pour def liggéey bi c'est-à-dire nga xam mooy structure bi wala de de manière large je pense que du mën a nekk c'est-à-dire CDP mënul dem ci structure yëpp di def li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy saytu bi ni mel donc est-ce que les moyens sont la mais aussi est-ce que les moyens de répression aussi sont là yoo xam dañuy permettre CDP mu def liggéeyam de manière efficace. ok comme comme comme ni nga ko waxee ah donc CDP tey euh, comme ni ñu sax en matière de données personnelles les moyens ne jamais suffisants. pourquoi parce que c' un domaine bu nga xam ne c' est c' est large c' est un domaine bu nga xam énormément de choses mais boo jëlee tey ci compétence wala domaine d' activité wu CDP CDP dafay def lu ñuy wax mission de contrôle CDP il a les il a les prérogatives de contrôler certaines structures dem xool exactement est-ce que elles sont conformes avec la législation beneen bi mooy li ngay wax tout à l'heure par rapport ak saisine bi CDP amul lu ñuy wax amul lu ñuy wax autosaisine mënul sa mënul autosaisiru ci benn. il faudra kon forcément ñu dem saisir ko. il faudra la personne concernée ki se sant lésée dans l'utilisation de ces dem saisir la CDP. même tey ji situation bu gisee ne vraiment illégalité bi mi ngi ci benn niveau bu sori sori sori du def autosaisine. CDP mun na dem def descente def alerte. su defee descente day def def dañuy dañ def lu ñu woowee audit de données à caractère personnel sur le traitement des données à caractère personnel. daf koy def ak ay yu bari dangay ngay gis chaque instant su fekkee ne décision passe décision mooy euh, rapport trimestriel bi muy génnee. soo xoolee da ngay gis muy def ay mise en demeure sur des entreprises yoo xam ne respecté wuñu naka la ñuy collecter des données à caractère personnel loolu entreprise de personne morale la par contre su nekkee personne physique boo xam ne sentir na ni ay données dañ ko utiliser à d'autres finalités cette personne a l'obligation de saisir la CDP pour que cette dernière puisse déclencher ce qu'on appelle la procédure judiciaire mais la CDP n'a pas le droit ou bien la possibilité de parce que yow Amadou boo sentiree ne que parti sangam jël na sa ay données te tàgguwu la am nga droit dem ci CDP su boobaa CDP daf lay accompagner pour mën a déclencher la procédure. li li may li may ñaawlu un peu ci ci CDP c'est-à-dire actuellement ak ni contexte bi mel c'est-à-dire pour conscientiser un peu la population peut-être mënoon nañ def benn communiqué boo xam ne dinañ sensibiliser un peu la population ci pratique pratique bi ni mel mais ba comme ni nga dina tax ñi nga xam ne ñu ngi koy def de manière illicite ñu xaw a dellu tuuti. waaw bon comme ni nga ko waxee ah, peut-être la communication ne suffira pas mën nañu communiquer communiquer communiquer ndax euh, population dañu bari mais nag CDP quoi qu'on puisse dire nous qui sommes dans le milieu xam nañ ne ah, wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi def lu am am solo donte nag euh, lu ñu def doyul ndax ñoom ñoo fi nekkal askan bi peut-être mën nañu préparer dans l'avenir des capsules vidéo yoo xam ne dina expliquer nit ñi nga xam ne amuñu. par exemple culture wala amuñu alphabet seen seen niveau jàng demeewul noonu ba ñu mën a lire guide bi même guide bi sax soo gisee y a des y a des y a yoo xam ne ki jàngul sax dafay mën a xam exactement que ni lii lii lay signifier lii lii lay signifier mais nag sensibilisation boobu noonu ngay wax c'est par la CDP tout simplement tous les acteurs doivent unir leurs forces pour def cette sensibilisation muy les médias muy l'État muy la personne physique bi nekk ci koñ bi muy les associations les OCB ñëpp dañ ci war a associé wu parce que il y va de notre propre de notre propre yaa ngi koy wax collecte illicite de données personnelles euh, manipulation illicite de données personnelles ay infraction la yoo xam ne loi bi daf ko daf ko daf ko daan sànq yaa ngi wax loi wu di ko di ko tey jii bu ñu ñëwee un peu ci rappel bi vraiment sur les sanctions yi nga à

dane tout toute collecte de données à caractère personnel qui se fasse de façon déloyale illicite donc sans pour que nit ki xam ne ñu ngi koy def daan yi mën na dem ci lu mu néew néew un an ba sept ans de prison ferme amende yi mën na dem ci lu mu néew néew cinq cent mille ba dix millions suñu ay koppar juste pour wax que ni ñi koy def nañu xam ne loolu yoon daf koy aay parce que amoo droit jël données wu nit ki te tàgguwoo ko

parrainage moom mooy tax may jël say données ci parrainage laa koy yemale mais bu parrainage yi jeexee ma gis ne que base de données bi ma yoroon jaay naa ko des entreprises de publicité qui font la publicité ciblée da nga def lu woowee détournement de finalité détournement de finalité nag article moom moo ciy wax moom tamit day dànkaafu ñi nga xam ne dañuy jël ay donne di ko jaay parce que données actuellement moom la ñuy woowee l'or 2 point 0 xam lu tax parce que les entreprises en ont besoin pour def seen ay statistiques pour def seen ay études mais surtout pour def ce qu'on de la publicité ciblée su jaayee données yi wala ñu détourner que quel soit le moyen détournement de finalité lay tudd en droit moom la wax infra l'infraction qui consiste à détourner la finalité des données collectées article 431 ngay dànkaafu koy def nga xam ne daani mën na dem ci un an ba tey ak sept ans de prison ferme entre un à sept ans de prison ferme alamaan

tourner contre les contre les Sénégalais est-ce que tey cadre boobu c'est un cadre performant est-ce que cadre boobu y a des manquements lan lañ ci mën a def ñoŋal ko pour Sénégalais vraiment sentir na seeni données sont protégées. intéressant cadre bi bon nekk na cadre bu nga xam ne euh, maa ngi la koy wax sànq depuis 2008 lañ ko am la loi sur la protection des données à caractère personnel depuis 2008 la ko Sénégal am. Mhm. boo xoolee de 2008 à 2023 il y a énormément d'années kii kii kii yu nekk ci diggante bi donc juste pour dire que le cadre est un peu obsolète on est dépassé. Pourquoi Parce que les technologies de l'information et de la communication courent à une vitesse exponentielle. Et pour ce faire, il, faut, falloir que, même si le droit ne peut pas être à jour avec euh, les technologies, mais au moins, nous avons tout un conformisme avec les réalités du terrain. mooy lan il va falloir ñu actualiser cette disposition juridique actualiser les textes prévoir des dispositions yoo xam ne dafay dugg ci lu ñu wax tey intelligence artificielle dugg ci lu ñuy wax collecte massive de loi 2008 bi jëlu ko en moo tax il va falloir ñu tëggaat loi bi actualiser ko jël CDP yokk ay pouvoir jox ko pouvoir d' autosaisine muy mën di autosaisir sur des cas pratiques beneen bi mooy ñu renforcer ses pouvoirs renforcer ses moyens de lutte bi ci des mooy ñu inciter à ce que mu am une mécanisme de collaboration parce que xam nga affaire données personnelles tey nit mën na nekk à l'extérieur mettre en place une plateforme di collecter ay données wu sénégalais di ko jaay sénégalais itam moom nekkul sur le territoire sénégalais et pour genre pratique yooyu noonu ñu mën ko xeex il va falloir ñu dem ci ce qu'on appelle des mécanismes de collaboration entre les législateurs des différents pays bi ci des mooy prévoir des des des yoo xam ne ça sera très contraignante xam nga tey Euh, le niveau africain au niveau communautaire on est un peu tout petit peu en retard par rapport aux autres pays soo jëlee Union européenne RGPD moo fa am général sur la protection des données mais Afrique ngay gis réew bu nekk wut loi wu boppam réew bu nekk bëgg wut ay texte boppam dañu bokk benn cyber espace boo xam ne données yi dañuy transiter à l'interne il va falloir ñu dem ci ce qu'on appelle l'harmonisation des textes pour mën a permettre véritablement

international. Est-ce que ça va être facile aussi Bon, facile, bon, je ne pense pas que ça sera trop difficile. Pourquoi Tey soo jëlee l'Union européenne au sein de l'Union européenne amul benn entreprise bu yëngatu ci GAFAM boo xam ne ay ay ay maanaam siège am ci Union européenne la nekk et pourtant au niveau du RGPD da ngay gis ne que prévoir nañ fa ay sanctions yoo xam ne su violation de données amee mën nañ sanctionner entreprise bi de son chiffre d'affaires te y a des amendes très lourdes yoo xam ne tey RGPD à travers RGPD Union européenne yenn pays comme la France teg nañ ko GAFAM teg nañ ko les Google Apple Facebook Amazon Microsoft ñun en Afrique si on parvient à s'organiser noo données seront mieux protégées parce que nous sommes des producteurs massifs de données à caractère personnel ñoo ëpp li ñuy passer de temps sur les réseaux sociaux ñoo ëpp li ñuy passer de temps sur internet mais malheureusement nos données sont ni ngay wax les pays yoo xam ne ñoo seq espace communautaire bi suñu mettre en place un règlement règlement boobu noonu forcément ñoom dañ koy imposer les GAFAM parce que même les GAFAM tey boo xoolee li ñu woowee taxation des GAFAM ah, amul benn pays africain boo xam ne yaa ngi jot dara ci les GAFAM à part les RSE te c'est pas normal parce qu'il exploite nos données yoo xam ne c'était pas c'était pas ci li ne mooy disponibilité bi mais aussi ci pertinence bi nga xam ne moom nga ko andi thématique bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu jël tey lan ngay lancer waat un peu li nga xam mooy la population sénégalaise ci wàllum données personnelles lan ngay parce que actuellement c'est une pratique boo xam ne mi ngi koy def c'est une violation c'est illégal. Sénégal te vraiment war nañ ko gën a moytu. waaw li ñuy lancé état mooy mu bàyyi xel que ni données personnelles moom ak le numérique sax avant les données personnelles nekk na secteur bu nga xam ne c' est le secteur qui doit booster le, le développement. aucun pays maintenant à l'heure où nous sommes développer sans numérique il va falloir ñu dem ci usage rationnel responsable du numérique fexe ko intégrer dans tout le circuit socio-économique. tey bu ñuy wax ay fintech bu ñuy wax ay commerce électronique bu ñuy wax dématérialisation des procédures c'est parce que numérique moom moo moom mën a accélérer les choses mais malheureusement dañuy gis ne quelque part l'État n'a pas compris ou bien ne veut pas comprendre l'importance du numérique. par rapport aux données personnelles aussi il faut que l'État garantisse cette sécurité parce que c'est moom moo yor lu ñuy wax organe décisionnaire yi moom moo nekk l'autorité administrative indépendante moom mooy le cadre institutionnel moo war a euh, protéger les données des des des des citoyens par rapport aux citoyens tamit ñu yeewu parce que xibaar données personnelles dafa nekk loo xam ne lu capital la lu sensible la te nekkul da nga ko war a jox n'importe kii wala da nga ko war a dugal comme n'importe comment. nu comporte comment merci beaucoup Assane Assane si ñu ngi lay jaajëfal remercier la bu baax a baax ci ci disponibilité on était aujourd'hui avec Assane si nga xam ne c'est un super juriste waxtaan ak moom ci li nga xam ne. mooy def actualité maanaam parrainage ak li nga xam ne mooy collecte illicite ak manipulation illicite de données personnelles ñu ngi lay remercier bu baax a baax remercier équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci réalisation mais tey duma jeexal sans pour autant remercier un ami un grand frère Serigne Mor Thiam Mbacke Bawol multiservice fële ca fële ca Ouest Foire El Capo ñu ngi lay nuyu xattu Wally Seck xalitu Ndiaga Euro xamal ne mafia bi yëpp mi ngi sa ginnaaw ñu ngi lay remercier bu baax a baax remercier aussi Assane Sy remercier nos téléspectateurs di leen jox dig daje incha allah lundi